gën la yoon yooyu ñu sotti woon ndox mi daal di ndox yoon yaa ndox mi wan leen ba leen ndox mi wan ne ba ñun ñëpp ñu dee seraw na ci boppam la dex ba dëkk ñu sax yoonu mu nekk ko bu bëgg ni ko loolu mooy li ñuy taay yi alquran itam waaye boo gisee ne ci nasaraan yi bu ñu ko déggee ñoom seraw na dafa dellu si deewul waaye nguur daa dem alxuraan waxul loolu alxuraan moom keroog lab na waaw keroog dafa lab dafa lab bi mu labee nag dafa dex dex géej géej xam mu génn loolu tamit mu nekk bitim dara keroog mu nekk bitim dara mi la boo xam ne alxuraan lu naqaree dégg la faraaw yi kenn gasa bi leen woon ñëpp defoon suuf lekk na leen ba tey nii firaw nii ba biñ leen dëkk lu ñëwee mille neuf cent lan la génne ñëpp dafa dañ leen a àmbandoo woon ba nga xam ne suuf du leen lekk bu ñu nëpp bu ñu farax dara dara du leen dal ñu génne exposé leen sax boo demee woon da nga leen fekk gannaaw bi ñu saadaat suul na leen xam nga suul na leen waaye man gannaaw da daf leen dañu mu moomu nga xam ne moo daje woon Moussa ak firaw yi ci def yëpp way jaamoom mu tëdd nii ñoom dañoo mën a amboo ba wane leen amboo ba ba di alquran di wax fële ne nekk ci da ñu ko xamuñu woon ne Firawna yi loolu day ba faw Firawna yooyu suñu musal seen yaram ci kaw lañ leen daan amboo garab yi leen daawoon diw ba nit ñi ñu di daan leen gis muy kéemaan ci ñoom mu yóbbu leen ndax sa alquran naqare dégg dañu naan euh, euh, géej gi dafa jot Firawna ñu ne daf koo jàdd wala daf koo mere ñi ne daf koo seexlu ñu ne. ci maam yàlla doon na yàlla sant mu gët mu gët ci raw ñu naan ko gëttee nit ñi gis ko xam ne borom kàttan ji woon moo nekk nii yàlla lottal ko ba melal ko nii ñu xam ne yàlla ci boppam moom rekk yoo moo moo daal laa nguuram bi te kenn tëpp ko ci te keneen ku mu doon lott la mu dellu def nag ñi nga xam ne noonu la yaram mu dee ñu sànni su dina loolu rek lañ jàppoon xam ñoom booba ne dañ ko gas denc ko te dana génn yàlla dana ci ñi di ko seetaan mu def ci man ñu ngi nag fan yemu nit bi bu dara mi koy te alxuraan naqaree dégg kenn ko dégg ñu ne booba loolu la woon kon dañu daan di wax ne rek ñu ne dégg ñu ko woon xamuñu dëgg dëgg fële nit bi bu dara mi ko waaye ni yàlla musalee yaamam lu mat ay junni at ñaari junni at ñetti junni at jëmm jëne fa mel nam meloon kéemaanu yàlla yi waaw bu fekkee am na beneen waaw ah, mm. laaj ne ndax alquran ku ko waxtu maanaam ku ba noppi sàggan ba mu ko ko waxee noonu la loolu bi mooy laaj bi ma di ko wax ne boo seetee tere xadis yi gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne nee na suñu borom wan na ma sama bàkkaar yi xeet yi yëpp yëpp yëpp waaye gisuma ca bu gën a doy waar bu gën a màgg jëmm bi ñu xamal ay xaas ba noppi nga sàggan ba fàtte loolu boo seetee tuxfatul mardiya daa ko fekk ah ki nga xam ne nag bu yomal xayaamee buñ koy sang day gumba alquran wax na ko moom lay wax qaala rabbi lima hashartani a'maa wa qad kuntu basiiran qaala kadhalika atat ayatina fanasitaha wa kadhalika al yawma tunsa lu jiitu aaya jooju wa kadhalika najzi man asrafa wala ñoom bi ay tera bii ci surtout taan wa nahshuruhu qiyamati a'maa ki nga xam ne suñ borom daf koy wan kéemaan bu tax mu war a mën gëm kéemaan bu ko gëmloo ba noppi mu xam ko gis ko wan ko gannaaw benn bañ ko topp ko bañ ko seet wala mu bañ la ko kéemtaan nga laaj bu ci ngëm kooku la alquran wax bu fekkee ne yow man xeram dekki na day dekki gumbo di aji gumbo ndax suñu borom daf ko wan aw ay kaawteefam yu war a tax mu gëm mu mu wan ko gannaaw aaya ji nag saahir bi moo tekki moo tax li mu laaj kadalika atatka ayatina fanasitaha wa kadalika yawma tunsa yow mi nga xam ne sama aaya yi daf laa dikkaloon nga fàtte ko wan ko gannaaw tey daañu la fàtte moom lañ ko wax yawmal qiyaam qaala rabbi lima hashartani a'maa wa qad nga xam ne day dekki di aji ju mu ne suñu borom lu tax ma dekki nga sang ma may aji ju mbokk dama daan gis mu ne ko waaw sama kéemaan yi dama la ko wanoon nga won ko gannaaw bañ koo settantal maanaam sa xol bañ koo nangu noonu nga fàtte woon aaya yooyu ngay fàtte tey aaya bi ñu ko waxee te suul aaya laay alxuraan rek teg itam kéemaani suñu borom yi kadalik atat ayatuna fanasitaha naka noonu la sama aaya yi dikkale nga fàtte ko tekkiwul rek laay alxuraan yi nga jàng ko fàtte déedéet samay kaawteef yi nga xam ne mën na laa won sama kàttan ba tax nga war ragal ba tuub gëm dikk na la nga won ko gannaaw mais ko fàtte rek tey itam dañ lay fàtte moo tax bi mu bi aji gumba ji bi mu dekkee ne suñu borom lu tax nga dekkal ma gumba te man dama daan gis qaala rabbi lima hashartani yaa ammaa wa qad kuntu basiiran mu ne kazaalika atatka aayaatunaa fanasiitahaa saahir bi mooy naka noonu sama aaya yi yéen a dikkaloon nga fàtte ko ñooñu taawile ko ne aaya alquran yi nga mokkaloon fa fàtte ko waaw foofu li ko tax di wax sama kéemaan yi ma la wanoon ngir nga gëm. nga woon ko gannaaw dañ ko teg fenn waaye alxuraan tam jàng alxuraan tam fàtte ko ci téere bi nga Tuhfatul bi ne sallallahu alayhi wa sallam nee na wan nañ ma bàkkaar yi sama xeet yëpp waaye gisuma ci bu gën a màgg ku ñu bu fàtte ko ku ñu xamal aaya alxuraan mu sàggan ba fàtte ko maanaam mu sàggan rek kon ñi euh, firi zahir bi كذلك أتت آياتنا فنسيتها alxuraan lañu firi ñu mu waxee ne buñ ko fangee bu dekkee gis bët dundoo daf naan suñu borom lu tax nga dekk moom nga dundoo te dama daan gis mu ne ko waaw sama kawteef yi ma la joxoon danga caa dundoo woon kawteef yooyu nag ñu firee ko fii ñu wax ni aaya alxuraan da nga ko mënoon tari ko da nga koo taroon mënoon ci fàtte ko naka noonu ko fàttee lañ lay fàttee waaye tumsa ji fekk mu fàtte rek wan gannaaw la ndax li nga li nga xam ne waxu taalif leen tumsa naka noonu yëpp lañ lay fàtte moom kenn du ko fàtte maanaam dañ koy wan gannaaw ci jooyo rek séddale ko mu mbugal am ko boobu laa la wan de jamono ji moo tolloog daanaka jamono ji nga xam ne li tax ñiy gàmmu te la ca xew la tax ñuy gàmm ca la xew woon ci diggante bi yi ñu toll maanaam sallallahu taala alayhi wa sallam guddi gi lu mu yaakaar ci diggante bi toll ci yi la woon maanaam bi njël diggante njël ak fajar moo tax muy jamono ji ñu barkeel barkeel ñaan ci sax ñaan gu ñu nangu la insha allah ñu ñaan bokk وإنما ثم رجعتم من مشاعر ما تحكمون عليهم ظهرنا له إسحاق ويحكم كلا هدينا ومن هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وموسى هارون وكذلك مثل المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وإسحاق ويوسف ويوسف كل فضل على العالمين ومن أتاهم ذريته وأخوانه وسلم وهديناه إلى صراط مستقيم ذلك فضل الله يهدي به من يشاء ويهدي لا يهدي الله يهدي من يشاء ذلك فضل الله يهدي من يشاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا أطعنا غيرنا من من من جلد فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا على ذلك ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسل الدراسة بنا إلى القيامة إنك لا تنسى النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بنا ولا تشركوا بنا في الذين آمنوا وعنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا أولي في الدين ثم به ولا بناس ثم ذكره ولا مفعله ثم لا تشركوا به ولا تدعوا عليك ألا تشركوا الله بأيدينا ولا تشركوا الله لا تجد ما في مقام هذا ذنب الا غفرته ولا مرض الا شفته ولا هذا من هوى الدنيا ولا حزن الا قضيتها ولا عنك ولا يقبل عنك اللهم لا نسأل الدنيا اكبر همنا ولا مستقل منا انا فلما لا تفتح من دنيا لك اللهم تقبل من ذنبك ما تاخر من علمك عليك اليه بك ساعه من تقول وانت سلام من عزيز من احسن من ايه من قريب من احسن من ايه من قريب من احسن من ايه من قريب اللهم صل على سيدنا وذكر عن سيدنا جميل جميل جميل هو الاولى فلم تحد جميل جميل جميل جميل مستهم ومن جميل شيء على سيدنا ما بلا اله الا الله يقبل اعمال اخر غايته ونشر اخلاقه يعني اللهم تشكر ابناء الاخره وتمجد ابناء jàmm àddina ala texe àddina ala aji fay am nu def ci gàmm suñu nelaw yi na la istihaad maanaam sëriñ la martir ku dee ci jihaad maqaam ngay am yomal xiyam ak ñu la suñu borom defal mu ne ana ban tamit man xeexuma woon ngir dara lu sama jaloore maam madina gi madina munawara gi ma dëkk waa Màkka ñëw bëgg ko moom loola ma taxoon di xeex ba mu lobbee boppam xeej bi ba dee xaru yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne leen suñu borom dana bind ab jaam ci safara muy jëf jëf ci waa àjjana di jëf jëf ci waa àjjana ba seen saa rek defe ko mu jàdd jëf jëf ci waa safara suñu borom boole ko ci waa safara mu dem safara dana bind jaam ci àjjana muy jëf jëf ci waa safara di jëf jëf ci ba seen saa rek teekoo dee mu jàdd jëf jëf ci waa waa àjjana suñu borom boole ko ci waa àjjana loolu moo tax ñu ne ci ruu di génne ci jëmm xatar la ay mbir ngi ci yoo xam ne suñu borom gën la ko xam ne nit ki la xamee ne baaraam tànkam ni sàmm dinaa mu dox ci nag yi bëtam gisam bi ànd ak day nekk ci diggante boo xam ne du duniyaa du oxra du barsax mooy xuruju ruux diggante boobu la ñuy tëjee bunti tuub yi waxtu bu nit ki tuubee dootu jëriñ dara suñu borom dootu ko nangu diggante boobu nit ki dootu am benn kumpal lépp lu ne ci àdduna ak àllaaxira barke lay jàngoon ndax ruux day am foofu kattan goo xam ne amul bu yemul bu ko defee lépp day mel ne seetu li muy njëkk a gis mooy ay jëfam jëfam yi rafet day neex ci moom rafet sopplu ba nga xam ne day dem bay gis ko bëgg a def katam tax ko ci gënam jëfam yu ñaaw day mel ci moom melawu xasaw wu ñaaw wu nëpp wu bon wu raglu woo xam ne wu subu la xam ne daanaka dugg safara léegi nag sa bañ ko gisee ko koy gënal diggante boobu mboolem lu ma soon a gis ndax aras lenn ci ulama rabbani yooyu dañu ne dafa mel ne seetu nit ki bi mu jugee ci àdduna bari mu def ñi nga xam ne boo jàkkaarloo seet looy def rek ma ngi koy photo mu mel ne film waxtu wuy dee ba jël ci film bi mu tàmbalee ci suñu juddoo ba suñu deewee waxtu woo xam ne tolloo naat ca ba bi jaar suñu gis woon jëf ji bon jëf ji bon jooju aju ci xolam mu naqar ni ko dana wacc image ci xolam image boobu bu fekkee ne sorul bu deeyee mën na koo texee dim naka noonu diggante boobu tiis bi muy tiis nit ki bëgg gu mu gën bëgg àdduna ak xéewal yi ci gën a am nga xam ne xolam daf ci aju aju boobu mu ci aju day metti bu xam ne day tàqli koog moom ñi nga xam ne boo xamul ne dañu dugal ci sa biir yaram lii ak lay ba mu tax ci ba jàpp mu gën a dëgëre ci yaram buñ gën a mettee gën a jàpp ci àdduna gën cee jàppalu gën a ci àdduna gën a am ay bànneex ci àdduna boo xam ne ruugaan wocc ko loolu noonu la loolu di gën a metti ci moom noonu lay gën a tiite ki la gën a dëggu àdduna gën laa bëgg yàlla bu ak ruuxam bi lañ noonu lay seddee mel ni di ko yëg diggante boobu noonu lay ci moom léegi nag bu fekkee ne <coughs> lii sabab texee bi ñetti mbir ba ñeent bu bu ñu def ko ñaar nit ki amoon na ngëm waaye toppoon na àdduna toppoon na bànneexam ba nga xam ne yooyu ay gàtt yoo xam ne fii firimal nañu ruuxam ba nga xam ne leeru aras dootu gëndoo ak leeru xolam dana war a ay waaye nag bu fekkee ne cosaanu ngëm nga ma nga fa woon ngëm ba tey yonente xam na ci saxol doo sax ca safara xam ne dañ cay jaar rek ñu dëla fóot na nga xam ne noonu la sa ruu gën a gàccee noonu la gën a tilimee noonu la gën a ñuulee na nga cay yàggee ba mu set ba dellu nam meloon nga mën a bànneexu ci leer yàlla mooy nga dellu àjjana naka noonu ji kon bu ruux di tàggoog jëmm nga xam ne moo raw ñaari doomu ndey yoo xam ne mujj ñoo tàggoo ñuy teqli ko nit ki ñi may waxee da nga gis li wolof yi wax siisi nit ki bu fekkee dafa amoon jëmm duñ bëggoon bëgg ko bëgg ko bëgg ko ñu naan buñ ko yëkkati day diis ndegam jëmm ci boppam mooy diis ngir teqli ko kooka rawatina ruux ci boppam ak ni nit ki bànneexoon ci àdduna ak alal ji mu ci amoon ak kër yeeg loolu lépp dafa jàppal woon ci moom ba dëgër buy teqli ko moom noonu lay mettee ñi nga xamee am benn dërëm buñ koy nangu moo ëpp jàmm ki amoon junni dërëm ñu di ko nangu ci moom naka noonu ki amoon million bu ñu ko nangu ci moom lay gën a tiise loolu moo waral diggante yooyu diggante yooyu biir boobu nga xam ne mën naa yàgg ci nit ñi mën na nekk ci nit ñi wala ñaari minute wala ñetti minute naa yàgg ci doomu aadama ji ci toll junni at mën na ci moom fukki mën naa gaawe ci moom it wala xef xetti loolu moo tax deegu gaaw mun wala deegu yéex mënuñu cee xam ku texe ak ku texe bi ndax ki nga xam ne autogris ko fiir ci benn seconde rek mu dee mën naa yàgg diggante boobu mën naa yàgg ci moom fukki junni at ndax waxuma yàlla waaye wàllu yi sax ci boppam dana tay jamono di ko rek di ko rek itam sayyidina kooku moo waxoon Abdurahman Cheikh Abdoulahab Chahrani Cheikh nee na Cheikh Aliou Xawaas buy sëriñam mat nay julli tamit julli rakka bu njëkk ba tollu ci rakkaam ñaareel faral naa koy nekk ni rakka ñaareel bi tari na Fatiha bay tari li ilaafi Quraysh Cheikh Abdoulahab Chahrani ñëw kàbbar tàmbalee ci bopp bàkkara sari ba fekk ci ko ila ko ci ba agale xolom ci bërepp naas jeexal ci abdul ci abul aliou xawaas jeexalagul li ila ko ci lu xam ne kon jamono mën naa gudd ci kii ba du amul dayo mën naa gàtt ci kii ba du amul dayo kon dee mënuñu cee xamee yàggaay bi ak gàttaay bi ku texe wala ku texee bi lan doon ci man dem naa ba fàtte aussi waaw waaw kon diggante boobu suñu borom dafa am ay kéemaan yoo xam ne lii du feeñ mbiru àllaaxira bokk na ci taawilu alquran wa maa yaalamu taawilahu illa allahu mas naa fekk si sëriñ bi wax ne alquran taawil bi du feeñ lu dul yowmal xiyaam te bu boobaa lu muy jëriñati bu boobaa la kumpa ñëpp di dañ lépp leer suñu borom booba lay wax jaam bi fa kashaf naa anka xifaaka fa basaruka al yawma hadiidun léegi muri nanu kiiraay lépp lu doxoon sa diggante dëgg léegi sa bët bii lu ñaw la day gis lépp dara doxo loolu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annaasu niyaamun fa iza maatu intabahu dañuy nelaw bu ñu deexee la ñuy yeewu boobaa nit ke ngi tàmbalee yeewu ci ci ñuy ba muy dugg ci bàmmeel wax naan ruux am nañu ak diggaale juróom juróomi diggaale faral naa koy wax mu ci conférence yu bari nit ci bi mu nekkee ci biiru ndeyam wéeroo demee yaram nga xam du ci aduna bi dara du dégg dara du gis dara dem du ko jox ñam bi mu génnee ni yaram ak roo digaalee woon fottiku nak ndax léegi ni ngi gis du dégg di wax waaye bu nelawee beneen digaale am li nit ñi wax du ko dégg di gis li xew waaye nag buñ ko dompee mën na yeew waaye ci yeewul du yëg dara du xam dara ci aduna mën na génn sax nek ci benen alam du gis naka nonu bu dee itam nek ci bar sax nga xam ne xiyam ñu ñëwagul bëri waaye ci mbirum yonent ndax afdal ba dafa am ñu koy wees alxawfu ak raja la ñuy wax ci bu dee doomu aadama boo xam ne ci jullit ñi daj àdduna rek la bokk xawfu ak raja bu weesoo foofu ba sori ci biir tasawuf bi di ko wax alxafdal ba bu fa weesoo daañu ko alxaybatu wal unsu lañ koy tuddee kon yonent dafa gis ci bàmmeel bi mën na dem barab ñu ñu kon kenn la jëm ndax loola ca nga dee waaye mu ngi xëy mu ngi koy gisee ci bàmmeel bi la koy yëgee te nam nekkoon mu mel ne gisu dara ci moom jëgg si dara ci moom sikkul muy dund gën a muy dund boo xam ne wut naa yi mu weesu woon yëpp bis boo xamee ne suñu borom tabaraka wa taala sant na Israfil dañu ëffati bufti bi Israfil ba doomu aadama yëpp ne palet palet palet palet taw boobu muy taw ak ni ñu ko misaalee ba ñëpp jóg ci kaw suuf di raj raj loo ne ay jëréer jëm ci pang ba doomu aadama yi daañu amaat geneen dund gu ñuy dund gu wuute dund yi ñu weesu woon yëpp dund googu ñuy dund moo gën a yër mboolem dund gu nu weesu woon ci lay gën a yëgee mboolem gu nu weesu woon ci lay gën a xame mboolem gu nu weesu woon ci lay gën a amee kàttan ci mboolem gu nu weesu woon ci lay mën a dékkoo mbugalum yàlla dëgg dëgg ci lay mën a dékkoo bànneex yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg diggante boobu keroog bis boobu le la kumpa bu mu doonoon di feeñ keroog la nit nëbboon di feeñ keroog bis boobu mooy bisu parce mooy bisub gàcce ci ay nit mooy bisub métit mooy bisub fiis ci ay nit mooy bisub jaaxle mooy bisub tawat ci ay nit waaye mooy bisub wér mooy bisub mucc mooy bisub mbëg mooy bisub texe mooy bisub bànneex ci ay nit bu keroogee yàlla suñu borom boole ñu ñooñu le bu ñu dekkee lëndëm bu fatt sarat nga xam ne boo làmbee daj ko lay doon mooy enveloppé nit ñi muut leen kenn ku nekk sa leeru ngëm dong moo lay ñiital ñii seen leeru ngëm mel na ne jant bi ñuy wax lépp leer ñii mel ne guddi léegi su badal ñii mel ne ko amee sondeel wala lamp ñii nga xam ne seenu leer ci seen baaraamu day sax rek lay nekk léeg-léeg mu ne xuy yi mu ne kamaj bu ne xuy yi ñu jéggi jéego bu ne kamaj ci taxaw ci seen kem kattanu ngëm itam la ñuy jéggee siraat eh, dem leen ci yeneen laaj yi ah, dafa am weer yi set yi rafet naan ko deel ci neel deenaa ci diine nasaraan wala ji yowat ñu jox la nga naan ndax ñooy ngën ji diine bu fekkee ne nag nit la koo xam ne ku war a texee la te béréb bi mu nekk luy tax malaayika du fa ñëw amu fa malaaka bu yërmande ndax dégg ngeen ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam yii bu mu nekk malaaka du fa dugg muy li ñuy wax simsaal moo di stati puppe yii eh, nit ñi ñuy tabax ñoom def ko jëmmi nit wala xaj ulama yi taaliin nañ ko am nañ ci ay wax yu bari yu wuute temps bi mayewul mu dikk mu indi lépp waaye aji aji dee ji daal néew boobu le bu tolloo foofu fopp nañu ku tolloo wetam naan la ilaha illa allah la ilaha illa nañu ku amee loolu ma waxoon bañ koo jege fopp nañu itam ñu bañ faa coow bañ faa waxi adduna ndax diggante boobu ñu toll maanaam li nga xam moment day day wax diggante bu doy day waar la ñu nga waxoon sànq rek ne yu bare bare xew yoo xam ne yenn yi mbir mi def mu ne ku fa jaarul rek ku dul yàlla sama borom tabaraka taala am na ci yenn yoo xam ne itam ku ci nekkal ma la cay xam nii lañ ci war a xam nii lañ ci warul a xam diggante boobu nga xam ne dañoo sopp ku fa nekk di tudd yàlla loola mën nañu ku fa jàng sóoratu yaasin yaasin wa quraan hakimi ba mu jeex ci diggante boobu am na nga neen lu mag ak njëriñ lu bari ci néew boo xam ne jóge na ba nga xam ne rot na gis nañ ci ulama yu ñoo xam ne ba tey rafetlu nañu duñ ko dencee ba noppi ñu tari ko suuru Yaasin bala ñoo teqali ko boo demee ci mel ne Afrique du Nord diggante Tunisie ak Maroc ak Algérie bari bu ñu suulee néew ba noppi ñi nga xam ne mokkal nañu suur Yaasin dañuy jublu penku rek wan gannaaw néew bi wala di doxale ko seen diggante ak penku tari suuru Yaasin ñu daal di dem geneen ñaan duñ ko def waaye bokk nañu daje ci ne alquran ku ko jàngal koo xam ne kii jullit la yool ba dana àgg ci moom daañu ko jàng itam ay kaami di ko def xaddi yonent bi daañu ko jàng di ko def xaddi gaaj baax yi daañu ko jàng def sarax képp koo xam ne yeeyoo nga sarax ndax jullit nga te dee nga benn ngay mbokk wala ngay mbokkum jullit rek diggante jàng alxuraan kon gannaaw lu màgg la te lu ñu fonk la defal ko néew am na njëriñ bu fekkee nag dañoo bëgg a def alxuraan bëgg a def leneen teg teggiin ak yar boo lislaam sant nañu nekk alxuraan fokkee teg leneen lu mu doon alxuraan itam màgg na màgg bopp fu ñu koy jàngee te kenn di ko déglu bokk na ci liñ digle bu ko kenn jàng nañu ne bañ mën koo déglu buñ koy jàngee nag ñu koo ko déglu képp koo xam ne déglu woo ko la bokk na ci yu metti sukuraat te sax ñu sol baxala dañ koo ñawee neneen moom itam nga xam ne fa am na lu ñu bokk ñoom ñëpp am na lu ñu wute muy taslim muy taslim muy taw kenn ku ci nekk dafa mën a nekk maqaama mën a nekk xaal kenn ku ci nekk mën nga nekk maqaama mën nga nekk xaal tooy sax mu baxal satala naan bu ko neexee mu taal sébb dugg ca nit jéem naa xam la ci diine ji lan la ñuy pratiquer seen diine ndax ni ngeen di pratiquer lañ koy pratiquer wala déet ndax ni nit ñi di pratiquer seen diine lañ koy pratiquer wala déet ñaareelu laaj bi mooy bu ñu jàng ci alxuraan tam dañuy gis ne léeg-léeg ay aaye mel na dafay jàccee si yonent bi alayhi salaatu lu ci mel ne am wa tarara lu ci mel ne tamit ci xaswa ci xamut di nga xamante ni jam nañ ci yonent bi alayhi salaatu salaam ci bopp xam ne kay fa yuslihu xawmun sajjuura nabiyahum muy laaj leeral ci mbir moom moom mooy bi nekk koy yónni ci jinne téere yi daa daañu warante ci bari ndax am na ci yoo xam ne boo seetee tafasir am na ci mu fassiroon yi ñoo xam ne dem nañu bëri wala qad jaakum yus min qabl bil bayyinaat famantum bi hatta izaa rek tutul lam asalaam ba'di a leer moo di ay jinne romb nañ ko ci kër garab muy julli di tari alquran ñu déglu alquran bi ba mu jullee ba àggale ñu dem seen réew di waare waaye waxoon naa ne xëy na waxtaan yi mën na gudd ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis woo na Seydina Abu Hurayra wala keneen ku mel na ñoom guddi dox moom ba ci àll bu sori mu rëdd aw rëdd ko ne ko bul génn rëdd wi ak lu mën a xew yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di dox ay jéego ba Seydina Abu Hurayra séenatu ko mu dégg ay wax yoo xam ne xamul lu wax ji mu dégg baatu yonent bi sallallahu alayhi wa muy wax xamul la muy wax sidna sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci leen nag ci riwaayaat yi nekk fa ba fajar di waaj a xar bi mu dellusee fekk Abu Hurayra ci biir rëdd bi mu won ko ne bu génnoon rëdd bi rek jinne yi daañu ko fàdd wala ñu sàkkal ko pexe bu mu dikkee xamal na ko ne ci xam-xam ak ci jaamu daf ko féete kaw ndax lu ko waral nit mooy xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kat kul hijaad war raan an an wajhi asilatil jaan du ko jinne yi dajalee laaj yooyu de dañ ko jox benn jinne mu soppali ko xaj nank ko ci gémmiñam bi mu doxee ba jub jàkka ji nga xam ne ci la Cheikh Abdul Aziz Al Shaarani nekk benn waaye julli bay génn daje xaj bi dax dafa defe ne xaj rek la xamul ko Cheikh Abdoulaye Sy xam na ne jinne la xam na ne jinne dañ koo yónni mu bàyyi ko daal di dogale xaj bi ba mu génnee dogale ko ca mbedd ma xaj bi daal di dox baax ci ciy tànkam daal di yàgg nekk xam du ci yokk ci wàññi dara maasum yàlla musal la ci loolu ndax yonent lu jiitu mu nekk yonent moom mën na mën na mën nekk na maasum wala nekk ko ulama yi wuute nañ ci waaye daje nañ ci bu def lu xaram gën a ci ne léeg-léeg suñu borom tabaraka wa taala dafa dal ci yonent bi ci jëf ji mu jëkkoon lu ko waral te Muhammad gën a ëpp ci xam-xam gën cee jege yàlla te Ahmad Bamba nee na alal baraya wa axsaaha wa akramaha inda la ci jaadali bi ñu woon wuri moo gën a fekk ci mbindeef yi moo ci gën a ragal yàlla moo ci gën a tedd lan moo waral abasa wa tawalla an ja an jaahu lama boo gisee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne unzila alquran ala sab'ati ahrufin alquran dañ koo wàcce ci juróom-ñaari xaraf ulama yi wax nañ ci wax yu bare bare bare bare waaye bi ci gën a niru gën cee dëgër mu gën ko cee mën a jàpp te moom la ñu àndal mooy li Cheikh Abdul Aziz Dabakh radiyallahu anhu wax moo di juróom-ñaari xaraf yi juróom-ñaari xaraf yee mooy lii yàlla bàyyi xel ci alquran mooy Muhammad doomu aadama la kon du malaayika kon am na nu alquran dikkee noo xam ne bu fa malaayika la du la dikkee li Muhammad di doomu aadama tax ak lu mu ko yóbbu ci ay doomu aadama Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nubu wala amee ñu bàyyi xel ci nubuwa bi nga xam ne ni suñu borom di waxee beneen jaam bu dul bu dul nekk bu dul yonent bokkul ak ni muy waxee bu dee ab yonent ñu bàyyi xel ci nekk bi mu nekk yonent ñu bàyyi xel ci nekk gi mu nekk góor bàyyi xel ci nekk gi mu nekk aadama gi mu nekk koo ubbee ci nga koy laaj ba ñu tam nag ñee raw ko ñee nga xam ne bëgg na leen a waar ba dugal leen ci lislaam mu mel na ku xaw a dëddu Abdullah ibnu Ummu umm Maktum dëddu googu mu ko dëddu te du dëddu lu mu doon xeer gu mu xeer ci lislaam bëggoon ñii tuub ba nga xam ne buñ tuubee danañ mën a yóbbaale leneen ñu bari te am umm Maktum moom du ko raw ndax mu ngi ci Madina mu ngi ci Madina te li mu koy laaj dana ko ko mën a wax suñu borom yedd ko ci ndax fi mu àgg ci yàlla moo tax ñu di ko yedd ci loolu maanaam fa mu àgg moo tax muy mel ne xale tey dana jëf loo xam ne duñ ko ci yedd waaye bu ko mag jëfee ñu yedd ko koo xam ne jaayil la xam-xam ak bu feneen mën na def loo xam ne daañu ko baal waaye borom xam-xam dem ba riir xam-xam ne dana jëf loo xam ne bu ko jëfee moom duñ ko ko baal ndax dañu naan li mu xam moo tax ku toll ne Muhammad sallallahu ak fi toll ci yàlla léeg-léeg dana dàq bëgg-bëggu yàlla lii la wala lii xelam jëmee ko ci ne lii la fekk du loola suñu borom dana ko dana ko wan ne loolu mooy yonent yépp leen di jàjjee ak ni ñu leen di xuppe di yeddee loolu la yonent bi sallallahu ci intérêt l'islam la doon def loolu mu doon def jàpp ne nag lee moo gën fekk yàlla moom xam na ne ñooñu moom duñ ci mukk te Abdoulaye mu ummu mu ngi nekk ci état boo xam ne lii def ko ittee boo xam ne bëgg gum bëgg gum bëgg lislaam am lu ko jaaxal mu bëgg a jub balay dellu te amul lot di bokk ci musarrafuuna yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wóolu ba ku wóor jëm ci moom leeral ko tawa ci ñee moo doon li gën yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàppoon na ne léegi gën mu jëf ko loolal ko suñu borom yedde da ngeen di gis daanaka yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom mboolem yonent bu nekk bu nekk suñu borom yedd na la waaye li koy yedd lépp ci sharia lay doon ci àtte boo xam ne suñu borom dafa nam na saxal lii te feeñalagul dëgg ji lay doon noonu mu jàjje Moussa ci ba mu ko daan suñu borom wan na sa bopp ma gis la te mu ne ko lan taraani walakin nuzila jabal suñu borom ba di ko laaj na gis jëmmam ju tedd ja te fekk doomu aadama gi mu doon nekk ci àdduna mënee su cee gis yàlla ci noona mu ko ko laajee suñu borom jàjj ko ba tey foofu la rawanteeg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Moussa dafa ñaan ne nañ ma woon xool Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ koo ne ko xoolal mu kersawu teggiinu warmaal béréb ba warmaal jëmm jë ba sëkk xool ci suuf loolu la ñu wutee moo tax Cheikh Ahmadou Bamba ne al anbiya wa jamiul mursalina ma an taallamu minhu aadab al ibadati yonent bi sallallahu alayhi muy dem bi mu rombee ci asamaan yi ñeenteel bi romb na Moussa muy julli ba mu demee ba mu duggee ci xadratu ci fii bi muy génn dajeet nag Moussa ci buntu ba Moussa laaj ko ñaata julli la la sa borom jox mu wax xam ne ko juróom fukki julli yooyu mu di ko yebal juróom yooyu muy di ko wàññi Moussa dafay roox moo tax mu mën a nekk ci bàmmeelam di julli mën a nekk foofee ca mu daje waaye ak loolu lépp Moussa jege na suñu borom di dem ci moom di xuus ci moom ba mu ne ko yebal loolu def na ko ibrahima ba mu ko naan rabbi arini kayfa tuhyil mawta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fa khudh ba'atan min at-tayri fadhurna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhu juz'an thumma da'una yatinaka sa'yan wala man la asnakimu bi ibrahima xëjje ci borom ba di ko laaj secret boo xam ne doomu aadama waru koo xam mboot mi ngay dundalee ñi deewoon yow sam nan ngay dekkale nit ñi wan ma ko ndax da ngaa gëmul mu ne ko xakaay waaye dama bëgg sama xol gën a dal ibrahima dafa laaj secret bu sari ci yàlla boo xam ne bi nit war koo laaj waaye su gannaaw xej bi suñu borom nag suñu borom jàjji na ko waaye daf koo wan ne ko rek mënu la dugg sa bopp na nga fexe ba jàpp ñeenti njanaaw njanaaw yu bokkewul nga rey leen dugal leen ci gën toq leen ba ñu mokk jaxasoo yàpp yi ak yax yi ak dung yi nga fekk montagne yi fenkoo soo ndeyjoor ak càmm bi ci ne nga tibb ak tibb dagg ko teg nga taxaw ci diggante bi woo leen ñoom ñëpp ñu naaw di kël la mel nañu meloon noonu laay dekkale ñu dee noonu suñu borom tabaraka wa taala jajjee Moussa jajjee ko Ibrahima dana ko jajjee itam ci awliya yi kumalul awliya yi xejj ba nga xam ne àggan ci moom koo xam ne defe nañ ne amatu ñu daytal suñu borom dana ne leen yemal fii am na ci luñ leen mën a nettali am luñ leen mënul a nettali bu ñu demee ci sax ci yonent yi alayhimu salaatu wasalaam mën na na waxtaane loolu ci kenn ku ci nekk waaye dana gudd laaj ba sax moo doonoon la ne bi man li may laaj mooy léeg-léeg suñ mbokki taalibe dajaloo nekk. istidraaj eh, istidraaj ak ak al makna istidraaj mooy tekki ak jëy jëy la ko wolof yi wax waaye ba tey bu jëy dëgg-dëgg mu mel na tey yaa ngi mere nit yaa ngi ko duma bañ ñu àtte ko fii fépp ay àtte yi bi nga bëgg ko dugal ci nit bee kenn du ko yëg nga tëj buntu mu di la tooñ ngay daw mu di la dàq defe ne moo la mën nga defe ne dañ ko ragal mu la topp rek ba ngeen bu jëmee ba nga tëj na buntu ga def ko ni nga koy def kooku mooy istidraj sanastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun wa umli lahum inna kaydi matiin la suñu borom wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yéefar yi seen alal ji seen pexe yi seen fit wi jëf ji bon ñuy def te bu ñu dellu gannaaw mu yàlla wan ñu leen ne istidraj laa leen di def waaye sanastadrijuhum min haysu laa ya'lamuun wa umli lahum inna kaydi matiin na nga leen bàyyi ca marga bi ak seen cati baaraam yi day tànk yi wën leen leen ba ñu miir ñu sànni leen nag mbax ñu daal ci biir mbital safara jànn ma laa leen jëpp istidraaj ahlu tasawuf itam jëfandikoo nañ ko istidraaj ci ahlu tasawuf jaam la boo xam ne suñ borom dafa nangul ci moom yiw jaarale ko nag ci yoon wu rafet mel ne ni suñu borom bi ni yorante bi salaatam waxoon bu ñu jógee ci xasmaan Ousmane moom nga xam ne bi jullit ñi demee xut di xare ji Ousmane bokk ci waa Madina mu ba sedd jigéen ñi ñëw di ko xat di ko yedd naan ko góor ñëpp dem nañu xare ji yow nga nekk fii di sëdd di ñàkk fayda mu daal di jóg sol mbubu weñam fab xeejam ak jaaytam dem bi muy xare yonent bi sallallahu alayhi wasallam wan mbooloo ci saaba yi ne leen ku bëgg